waaw salaamaaleykum xanaa di nuyu ñëpp rek eh, di rafetlu tamit seen liggéey di wax ni ñoo ngi fi ñëw comme ni fi daan ñëwee chaque année rek si bis bi di ko teewe man Ndoumbé Mbodj la médecin ñu ànd fekk suñu suñu njiit docteur Niass Amadou Niass bon mooy coordonnateur bi sax waaye comme jamono ji moom jat bi dafa bariwul moo tax mu yabal ñu waaye moo ngi nii ñëw na ñu ànd fekk yeneen suñu yeneen naataangoo suñuy mbokk médecin ak infirmier yoo xam ne dañoo ñëw pour taxaw si bis bi bis bi nag ren ni mu tombeek màggal gee tax ñu defee ko nii mais chaque année dañ daan def consultation ñu boole ko ay circoncision xarafal xale yu bari mais ren comme dafa jege màggal gi activité yi tegloo moo tax dañoo def don de sang ak consultation don de sang bi nag commencé nañ ko ak waa CNTS depuis ce matin ça se passe bien xanaa kay nit ñi ñoo xaw a yéex a ñëw nag parce que boo xoolee julli géej bi lu si bari tàkkusaan la moo tax day nit ñi dañuy xaw a yéex a ñëw mais dans la ensemble ça va nit ñaa ngi ñëw di participer ci suba ak léegi daal. médecin yi tamit ñoo ngi fi képp ku bu am jàngoro rek war a tawat boo ñëwee gars yi dinañ la saytu bu laajee ñu jox la garab tamit ñu may la garab euh, chaque année nag dañ koy def parce que dañ fi ñëw ànd a docteur ñas di si bari tamit waa jàmm ji tamit si appuyer en médicament. Euh, ak yeneen yu demee noonu mhm. loolu daal moo taxoon ñëw fi tey. kon mu mel ne bu weesoo aspect jaamu yàlla bi ci amit day mel ni bu weesoo aspect jaamu yàlla bi ci am tamit day mel ne taxawu doomu aadama yi aspect humanitaire daf ci feeñ bu baax a baax ndax ku seetlu jamono yi dangay gis ne manque de sang dafay bari ci banque de sang yi kon seen taxawaay ci bës bi day mel ni loolu dana ci am solo lool. waaw waaw comme ni nga ko waxee rek boo gisee aspect humanitaire social bi moom. da see yàgg am parce que boo xoolee année passée comme ni ma ko waxee dañ daan ñëw xarafal xale gratuitement mais ren ji ñu gis nii boo xoolee manque de sang moom fépp la am si banque yëpp ñëpp koy jooy moo tax ñu ne comme fii nit ñu bari dañ fiy dajaloo mbooloo mi di taxu lool pourquoi pas tamit ñu defaale ko pour gën a jàpp ba tax sax ren ñu couplé ko comme comme activité boobu day xat ñu gën a renforcer don de sang bi ak consultation parce que loolu moom. lu waay def rek sa bopp nga ko defal don de sang moom defe naa ku xam lu si nekk buñ ko wootee yaa njëkk a daw ñëw bala ñu laa woo. Euh, pour le moment xam naa ñu am bilan mi parcours bi xëy na mën na xaw a jafe waaye ci suñu gis day mel ni nit ñi ñu ngi ñëw di maye deret ñenn ñi tam ñi ngi ñëw ñu leen di xool kon day mel ne activité bi moom mi ngi dox bu baax ci jamono bi ñu toll. waaw pour l'instant comme li nga wax rek comme ñoom ñoo yor statistique yi wax ni temps la mais dans l'ensemble dañu ko xoolee am nañ ñaa ngi ñëw parce am na nag ñuy ñëw par benn benn mooy ñuy doog a yegg si te ñoom tamit ku ñëw rek ñoo ngi koy jàllale si rajo bi ñoo ngi yegg si am nañ yaakaar ne daal fii ak 13 heures ñu arrêté moom liñ ci na euh, nattoon si ay poches yi gars yi indaale yëpp dina jeex incha allah. bisimilah kon sëñ bi tur bi naka la. Mouhamadou Ba. Mouhamadou Ba. waaw mel ne da ngaa ñëwoon doon maye deret tey. waaw dama ñëw doon a xam euh, sabab bi ak euh, ban yëg-yëg nga am tamit ginnaaw bi nga mayee deret ba noppi. ban yëg-yëg am asalaamaaleykum. yëg-yëg bi ma si am mooy maanaam boo bëggee yaa baax da ngay maye sa alal te ñoom maam borom Touba maam El Hadj Malick maam Limaamu Laay ak suñu maam yëpp dañ maye woon seen alal ñoom source lañu maam borom Touba moo ne woon yaa rabbana bi xaq bisimilahi abliya ismatan bi laa tanaahi bi xalbiya bihi wanaa jinni min kil dini hadiya fi zamaani kon kooku wàccee nañu ñun ñii lii nii fierté la ñu bëri dañu war a ñëw pour maye si don de sang defal ko sa bopp la waaw mooy dellu dellu dellu dellu dellu mbàttu ci ndaal yi waaw da ngay guux rek wala ñu tànk jox la nga guux xéewal kese la waaw. dëgg la ndax day mel ne moom mënee su ko am fenn lu dul sa moroomu doomu aadama rek moo la ko mën a may kon yow boo amee yëg-yëg boobu day am solo lool. waaw xam nga liir sax buy door judd yëg-yëg dafa am doole arxuraan bi mu wàccee sax ak bépp diine ñi koy yëg ñoom ñoo koy appliqué ba léegi liir buy door a judd dégg du gis waaye boo ko dompatee da koy yëg moo tax yëg-yëg bu dee yàlla dafa dem ba tudde melentaan yi saar pour ñuy roy si ñoom mu tudde saar yemb yi ak nag kon ñun ñi war nañ di roy suñuy morom si lu baax di ko def suñ kilifa yi lii lañu xamoon joxe partager du question que ne nga togg say ñam foto ko nii di ko wan ay nit loolu du partager comme li suñ kilifa yi def moom mooy partage ñu jéem leen roy rek jéem nag lañ mun ndax ku la jiitu nii pour nga dab ko nii lu jafe la léeg-léeg waaw jéem rek lañ mun nag ñoom nag dañuy jéem a roy si ñoom rek incha allah.